Ah, amatul lay dee déedéet liggéey rek terminé yéene kaay ne dama ne mbir ma dee daal dinañ koy fate nag kon ni ki démb daal ak état d'urgence ba nag waaw Macky Sall day fekk ne nag kon opposition bi la ci seen wàllum bëgg-bëgg amendement ba lañ laalli waaw libération yéene kaay ne waaye waa PUR day ak waa Ousmane Sonko ah d'accord duñ ca loi ba dee déedéet te moo ñoom ñooñee président de la république kon recevoir na leen waaw dama ne la professeur Issa Sall waaw mu tabal suñu réew mi la ci xam ne kon bët setagul wàllum incertitude dëgg la Diallo député waaw nee na même bu kon ci toog waxtaanee kon wàllum jàngoro ji ak ni ñu koy xeexee waaw lu jëm nag ci wàllum loi bi lée luy ndeyu ñuy jox nag ko ni kon wàllum corona ji critique yéene kaay ne gis nga assemblée nationale googee waaw nee lu la neex eh way Samba waaw yéene kaay Pape Sarr ba yamu ca dee parce que nee na député nga xam ne maanaam ñoom ñoo fa nekkoon yëpp la loi d'habilitation bi lée ñoom ñoo ko fa te gis nga dee déedéet Macky Sall mi lee est du soppi boppam bu wóor looloo jara laaj parce que am loo xam ne nag maanaam xel da koo nanguwul daal déedéet Macky Sall nga xam ne bu dul dara sax charte bi réew mi la di constitution bi kon doole ji nga xam ne kon daal dina ko ko jox dee waaye waaye Macky Sall nag soxlawul doole ji la ngir xeex ak jàngoro ji déedéet Mamadou Lamine Diallo ci libération yéeni la Moustapha xanaa xanaa Macky Sall ci boppam kon bëgg a daganal wàllum jaay doole di mbirum dictature koy waay waaye Macky Gueye soxlawul loi bi Dakar Times de dama ne la Macky de la ñu ko jox moo raw ay ngànnaay laa la wax ngir xeex Covid 19 ja waaw lu tolloo fanweer ak ñaar ci ay député de ñoo ko ba te démb kon ci assemblée nationale boog soobi li ne Macky kay ah léegi nag moo fi ne eeway eh Samba waaw dama ne la président Macky Sall mi le léegi moo jiite palais ba jiite assemblée nationale eeway eh Samba fii ak ñetti weeru yàlla nag laa la wax borom doomu jàngoro ja waaw Abdou Mbow seppi na ko le ministre ba bind ca biir la tous ordres dinañ ko Thierno Bocoum ne alhamdulilahi rabbil alamin dee dama la amendement scandale la bi nga xam ne nag maanaam kon gouvernement bi la da ko caa roofoon ca commission dindi nañ ko ca plénière ba ñun koy bég nañu léeg ko yéene kaa ne Abdou Mbow daal boo bëggee dégg-dëgg waaw moo sauvé assemblée nationale kon ni ki démb dee Macky Sall nag xàll wi nga xam ne kon a yalla yoo xam ne daal ñi ngeeg jàngoro ji lee sibiru bi waaw lu tolloo téeméer ak juróom ñeen fukk ci positif allahu akbar ñeen fukk ak juróom ñoo xam ne kon faj nañ leen ban wér junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak benn ci ay test yoo xam ne kon def nañ ko waa Expresso waaw seen 4G bi nga xam ne moom lañ na doon installé te mbir ma aj nañ ko ba jëmi jamono maître Babacar Ndiaye nee na essor bi tamit soxla nañ seen wàll ci xaalis bi lée ngir xeex jàngoro ji yéen leen participer moo gën ngeen di laaj vox sobi li ne Sénégal day waaw na ñaari téeméeri kaax allahu Quotidien moo taxit Macky Sall de nee na bi toogaat leen seen kër waaw parce que juróom fan ci weeru bi la la xale yi naroon a jàngi waaw waaye léegi yóbbuwaat nañ ko nag ba ñeenti fan ci weeru mai lu tolloog ñetti téeméer ak fanweer ci ay millions ci ay lekk waaw la fa seenee séddale daara yi lée laas ne xanaa déggoo ma Macky kay assemblée nationale jox na ko ngànna yàpp ngir mu xeex ak ji la témoin yéene kay ne kay mooy buur di bu xéeway eh samba kattanu réew mi yëpp lañ dajale jox ko ko sur saane waaye ñoom Abdoulaye Diouf Sarr ak ñoom àndal waaw dëgg la ñu ngi fañeen nañu feebar de dëgg de waaye nag saay bu ñu xëy ñu ngi ñaan ba bu ñu dajee ako feebar koo xam ne day naan sàngara wala day tux cigarette wala mu am jabet wala hypertension wala genre feebar yooyee enquête yéene kaay ne sànni tàcc bi de professeur Moussa Seydi la dëgg la Ebola moo fi ne kon corona moo fi ne professeur Noël Manga la ay làmbatoo kaf yëngal non cardiologue bi lée nee na te bëggul siiw nag moo tax professeur Moussa Seydi instant bi xaw ma nan lay dundee daal rapport yi dee ngay ñaasante moom mobile les se ko yéene kaay ni dof waaw ni dof day waaw ay tan la leen tuddee de ay saro ñaar la ilaha illallah nee na gaañaa ngay waajal ab mafia de ngir dund ci ndoddal hip hop bi di monter ay dossier di kàcc di ka ngandal ngir ne corona ji da a jàpp fuu ma laa day daal koy weddi ne gis ngeen ni dof mi lée ah a waxul dëgg kay direct news nee mooy faux médecin bi la docteur Samba waaw Abdoulaye Diouf Sarr nee na porté na plainte te mësta am autorisation ministère ba libération yéene kay ne docteur Amadou Samba kay nee na li mu doon wax ci boppam nekkul dëgg da doon kàcc allahu akbar nee na nekkuma docteur sama carte bi ñi ngi ko defaree ci imprimerie Isotec nekk point e yéene kaa gi ne juróom-ñetti délit lañ ko toppee laa la wax huit délit libération yéene kay ne benn oto de lañ sàcc ca siège u Azer allahu akbar ñeenti élément u chemi de daanu nañu benn policier stagiaire ak ñetti auxiliaire xamuñu woon ne système vidéo ministère intérieur bi